asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi ci àdduna ak mu mën a doon ñu ngi lay fekk fa nga toog jox la suñu loxo nuyu la ziyaar la ñaanal la jàmm di ko sàkku ci yow noonu la ñuy def dem ci kilifa diine yi nga xam ne ñooy suñu wéeruwaay di leen nuyu di leen sargal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom bu baax a baax ndax nee nañ ko amul wéeruwaay da ngay yomba ba wax ba tax na yéen yéenay suñu lépp ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad di ci teg suñuy ñaari waajur di leen sant bu baax a baax di leen jaajëfal mais ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi di ñaan yàlla yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu ci seen njaboot mais ñuy la du ñu fàtte suñu waay dawla yi di leen ñaanal yàlla na leen àjjana oyofal suuf seen kaw te ñi fi bàyyi yàlla fëgg seeni bopp ñoom tamit ba ñu mën a am wér toogee di leen ñaanal ci barke Seydina Mohamed mais duñu fàtte képp koo xamante ne rek yaa ngi nekk ci àdduna rek nuyu nañ nag ñu ngi fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point émission aada ak cosaan ñu koy def dimanche bu jot di nuyu ki nga xamante ne mooy kilifa kër gi nga xamante ne moo fi directeur ba ki fi gën a ndaw rek ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku bu baax a baax tonton Ngaari nuyu naa la ziar la di la bu baax a baax. waaw ngi lay fay salaamaaleykum wa bokk àddina yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa diine kilifa aada di jël suñu nuyoo si amoon taxaa Mbàkke Basiiru muy xalifa bu Serigne Touba Xaadimu Mustafa ak mbooloom njabootu ko sëriñ Touba gépp nuyu sëñ Babacar Sy Mansour njabootu maam kër Alaaji Malick Sy gépp nuyu sëñ Maayou Niass sëñ Seer waa Yoof waa Laayeen fàttewuñu kenn di leen siyaar baax dañaan yàlla suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm moo njaboot yi ñu jiitu yëpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di leen nuyu maam ma ne bu baax di nuyu Ndeya nuyu Babacar mi réalisé émission bi muy waa Leral gépp ko doole ci suuf ak ci kaw ñun ñëpp ñu leen di may nuyu la son excellence le président de la république Macky Sall suma xarit sama mag di yàlla yal na ko yàlla defal jàmm gunge ko ak njabootam gépp defal ko opposition bi defal ko société civile defal ko ñëpp ci àdduna bi ñëpp am jàmm yal ko yàlla def ci kàttan yàlla ak mbaaxam di jaal ñi nga xam ni sunu xarit Mansour mbay bu géewul loolu soppi émission bi loolu ndeysaan mais man yeex naa yëg sax faatu démb laa ko yëg daara jotu ko dem na def animation ñibbi si këram ci fajar gi muy ji borom bi waaye loolu moo neex yàlla kenn ku nekk it li ko coon sekke waye woon ku xamoon ndox mi waa ñam wi lay rey doo ko laal waaye yàlla bu ma telee moom kenn mënut a li kon yàlla yàlla jàppale ñëpp ñu ngi ziar ñëpp faaraku daarin aw saara doore jàmm jeexale jàmm ci kàttu yàlla ak baaxam. teggiwul moom tamit ñu ñaan yàlla yàlla xaare ko àjjana te oyofal suuf ci kaw di wax ne àdduna moom moo tëddee noonu jamono bii ñuy waxee rek képp koo xam te am na ci ku génn àdduna rek ñu ngi la koy jaale di la ñaanal yal na la yàlla may ko yàlla boole ñu bokk ko ba ba nuyu naa la nuyu tontongaar yi maa ngi wax asalaamaaleykum di nuyuwaat ñëpp ñi téléspectateurs yi seetaan Leral TV ñiy teewlu émission bi chaque dimanche. ñuy nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal ci hôpitaux yi yàlla na leen fa yàlla suñu borom jële fëgg seen bopp ñu dellu seen njaboot ñi ci prison yi aussi même chose ñu leen di ñaanal yàlla jële leen fa delloo seen njaboot di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ñi ngi comme ni nga ko waxee rek euh, instant bi ñu toog nii nii ñi ngi jooy ñi ñu ngi ree ñi ñaanal képp koo xamante ne yàlla suñu borom jële na la fi yàlla yàlla xare àjjana ñu ñu fi des yàlla bàyyi ñu fi ba ci kanam a kanam waa macha allah Ndeye nuyoo bi am na solo lool ñu lay ñaanal jàmm yow tamit bu baax a baax mais may jaale sama yaay sama rakku yaay boo xam ne borom këram dafa génn àdduna muy juma nekk fee nga xam ne moo di tiwaawan borom këram boobu nga xam ne moo di abbas di ku baax koo xam ne ku ko sagar la ku ko bëgg la muy xale bu ndaw dëddu àdduna ñu ngi koy ñaanal abbas yal na ko yàlla xaare na yal na yàlla oyofal suuf si kawam juma yeeg sa borom kër boobu yal na la dëddoo jàmm doomam bi fi nekk muy sëñ Babacar moomu yal na ci yàlla teg loxo ci barke Seydina Muhammad ñu ngi ziyaar ñëpp di ñaanal jàmm dëkk tàng na surtout fan yii nii daanaka ay xale rek ñooy génn àdduna yàlla nañu yàlla jéggal rek yàlla defal ñu jàmm te képp koo xamante ne nii rek bis bu la yàlla di jël yàlla na fekk nga nekk ci lu ko neex fekk nga yor xol bu rafet te ñu boole ñu ci waa kër Seydina Muhammad Rasulullah incha allah rabbi yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm tonton Ngari ñu ngi ci émission aada cosaan ñu fa yéene waxtaanee tey li nga xamante ne mu nekk baat bu gàtt baat boo xam ne li ko ëmb dafa yaatu baat boo xamante ne nii tey bëri na ci àdduna bi jamono bii ni ñu koy wéyaale bari na torop torop torop torop ñii dañ koy teg ak réewande ñii di ko teg ak ndof ñii di ko teg ak texet muy xamadi tey boo ñu doon leeral xamadi tey lan mooy xamadi waaw jërëjëf maam Marème ci thème am solo woowu euh, ñu war ko waxtaanee muy thème boo xam nit mi ngi dox ci jamono waaye saa su waxtaan sampoo dina dimbali koo xam ni xamul woon parce que doon mag taxul nga am xam-xam doon ndawit taxul nga ñàkk a yeewu euh, dañuy wax âge parfois léeg-léeg gis mag moo xam ni fi gone rek lay def waaye léeg-léeg gis gone goo xam ni fi mag rek lay def kooku nag moo ëpp sens mag muy def yi fi gone mais daf am lu nit ñi di jaawale te nu war koo teqantal ba kenn ku nekk xam ko foofu la Sénégal toll mooy reewande ak xamadi ak yàqu ak yaradiku benn bu ci nekk nit ki danga koy gis ci moom mais tey bi ñu jël mooy xamadi soo ko waxee ki xamul mu taf loxoom ci gémmiñam xamadi mooy ku xamut bar na ci ñoo xam ni bu nu demee Europe seen ñàkk jàng dana gis foo xam ni dañ fi def interdit maanaam pour que waroo fi dugg mais ci ci ñàkk xam euh, mu tuuti xam njàng mi jàngoo danañ fa dugg ñoom mais léeg-léeg nasaraan bi daf lay comprendre day xam ne jàngul ñi fa gën a ñàkk sens mooy ñi jàng. parce que fi ñu tere da nga koy xam ba doo fu mën a dugg parce que boo fa duggee sa conscience du tranquille mukk parce que tere nañ la ko yow yaa fa dugg ndax jàng moom boo kooku xam na ki xamul nag mooy def yu baree bari ba sa doom ju ndaw léeg-léeg nga taal biir gi mu teg ci loxoom parce que xamul léeg-léeg nga gis koo xam ni day dox ci kaw tali bi di di connecté wu xamul du ko teg ko réew de dafa xamul parce que lu ne mën na ko faa fekk kon xamadi mooy ki xamul ci wax baat bu gàtt ki xamul nag lenn rek ku mën a dimbali ñu xamal ko waaye moom it li ku mën a dimbali mooy mu nangu parce que ku jur sa doom yóbbu yóbbu daara da ngaa bëgg mu xam ku jur sa doom yóbbu école da ngaa bëgg mu xam jàng métier da bëgg mu xam kon loolu mooy xamadi boo ko deful yooyu nag mooy xamut comme ku xamul day xamat xamadi su xamadee nag day dem ba def yaakaar dafa dof ak dafa reew ak dafa nang fekk daa xamut bis boo koy xamal rek gis muy am changement muy changé ngay xamal muy changé lu bari yaay nangam ah man de xaw ma ko woon yaay nangam man de xaw ma ko woon ngay commencé xam kon xam dafa am solo ci biir waxtaan daañ ko daañ ko faram-fàccee ba ki xamul woon dana xam moom xamul woon na dem ñu ko boo xamee rek dana mën a dimbali ko kon xa li bi am na solo trop parce que ñi xamadi ñoo bari ci réew mi waaw. ñu teg la si yoon nga bañ a rëy gis nga boo rëyee lu bëri doo ko xam di nga dem si xew sax ñu la mag nekk fa ak ñoo mag yow ñoo xam ne yow ñoo la mag wala nga mag leen ñuy togg mais soo ñëwee del féete ci ginnaaw da nga xamee loo xam ne di nga gën a mën a yokk sa jàng togg mais bu fekkee boo ñëwee toujours da ngay ne man maa gën a xam rek yow sa xam-xam bariwul Ndeya tey boo ñu doon leeral tuuti ci li nga xamante ne mooy baatu yi tey lan ñu ci mën a leeral Ndeya mbaa da ngaa fër. <laughs> ngët lu waay. comme da nga ko waxee yow na ni xamul. mi ngi mel ne tey waroon jéem tey gis télé bi ñu gis sens interdit. yow mi jàng tey boo ñëwee dina mën a leen luy sens interdit. Hmm. parce que daa ko déggee fii waroon fi jaar mais ki nga xamante ni jàngul. jaarul ci ban école xamul dara day ñëw rek foncé. léegi su ko defee nit ñi dañuy jàpp dañ naan dafa réew wala dafa autoritaire wala dafa bëgg dafay jaay affaire fekk na du loolu dafa xamul parce que ñàkk xam ñàkk xam bi mooy moom dafa jàngul bu jàngoon kon dina mën a liir ba du ci dem kon xamat yi dafa bëri dafa bëri ay façon nji comme ni nga ko waxee ñi ngi koy teg réewane ñi ngi koy koy teg du loolu ñàkk xam la nit ki yaakaar naa booy waxtaan ak moom ak di ko conseillé di ko delloo si déjà jàng bi ñuy def rek pour xamal xale yi la pour ko leen xamal leen li nga xamante ni xamuñu ko bu doon loolu la kon école du am dara du am formation dam parce que nit ki lu mu nit lu mu xam lépp rek dañ ko ko xamal lu luñ la xamal rek rek war a doo ko xam. dañu la xamaloon ci ñi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan leeral TV leeral point net amuñu seen fay dañ leen di jaajëfal bu baax a baax rek mais tonton yi dangay gis tey euh, waajoo xam ne day naan sàngara ñu baal ma ci kàddu gi wala muy tux te kooku day fekk koo xam ne jàng na alxuraan ba wàccee ay kaamil ba jàng xam-xam mais foo ko fekk tey day tërëf nekk ci lii soo ko toppee ba topp ko naan la moom di kii de doomu diw la ak a baax wala kii de ni koy gisee nii xam na lépp lu baax ak lu bon ndax defe naa lépp lu baax ak lu bon rek mu ngi ci sa mu ngi ci alxuraanul karim gis nga boo gisee ñu mel noonu ci àdduna nga am ràññee ci moom mu doon koo xam ni même buy jëfandikoo sàngara du saaga du def yaramu neen du njaaloo ay ko xel soo mënee sàkku ci moom ñaan def ko bari na ci gaa yàlla yoo xam dañ koy nëbboo bu ko neexee wax la bis bi ngay faatu bis bu ko neexee wax la bis bi nga war a am moom xam nga misaal la faatu moom ku lu naf sayxatin moom ci moom ku ko bañ bul judd dama la joxe exemple Euh, dafa dul bokk ak ki def yaramu neen moo mooy ku nit ji parfois ki ñuy wax dafa dof ñaare moytu ci ki nga xam ni foo ko fekk mi ngi bañ cëram fay du neen saa boo ni bisimilah yàlla jàmm ci ka sa kawlal moom takk na wuti aras fa lay waxtaane ba fajar mu delsi ànd ak yow na ci jamono du saaga du tooñ du lekk lu salte du tëdd fu salte bàyyil kooku xel moo kii naan sàngara te du saaga du du du jalgati du def yaramu neen du moy bàyyi ko xel dañoo làqoo parce que dañuy làqoo xam nga seen Sénégal dañuy wax bu ñu xamee fa nga jëm doo fa yeng léeg-léeg sax ñu ci wax benn baat mais doo ci def attention kon kooku day baax ci kii xamul ki xamadi mu xam loolu ba léeg-léeg nga ku nit sax mu la jox loxo nga ko demal demal demal demal da ngaa amul parce que bàyyi ni téeméeri nit. tàllal loxo am na lu tax mais ñu ñàkk chance bi parfois ñoom lay wut ñu daw fekk yaa ngi daw sa njëriñ parce que ñàkk xam a tax gis nga njaay borom costume yi ci télé yi lu rey réew mi ñooma li ci xam dañoo bëriwul parce que da ngay foog ni boo jàngee nasaraan làkku jàmbur ca France rek yaa ngi au top ñoo leen tudd les intellectuels xam nga kan mooy intellectuel nitu alquran ki jàngal xuraan ba xam mbóot ma seetal ñiy bëgg def élection ñëpp ñu ngi wër kaay jàngal Alxuraan pourtant ñoom kenn demul ci ñoom ñaanal ma parce que amuñu xam-xam ñu ngi jëm ci ki jàng Alxuraan sëñ bi de damaa ñëwoon soxla réew mi bëggoon nga nga ñaanal ma am sa am sa intellectualité an la nga jàngoon ci école ba nekku fa de borom alquran moo fa ne koo koy intellectuel parce que ñoo xam fu la jëm fa yàlla xam liy defaree fii jëm fa yàlla yow la nga xam France la yem aéroport New York boo fa làkkee France kenn du la dañ lay faale aéroport suisse sax aéroport yëpp la sax soo waaj làkk France kenn faalewul te anglais ngay wax kon nga xam ne loolu bëriwul soriwul kon nañu dimbali ba wax ñi xamut ñu xam wax leen ni ñi leen gën a xam a ngi ci kër yi toog ak ci néeg ak atelier mais amuñu poñu dem ci télé ak rajo yi di wax kon xamu leen bàyyi leen ñi xam ñuy wax kon ñi xamat yi mooy ñooñu nga xam bu nu waxee rek gars yi ah laa ilaha illa xanaa li mu ko kookoo xamut te moo bari ci réew mi moo bari ci biir réew mi ba tax na doomu aadama bi soo xamul lekk deel laajte nit ki deel dal deel teey bu rëy gis nga rëy dafa nekk loo xamante ni day rey borom nit dafa nekk poson ci doomu aadama doomu aadama da ngay oyof mbaa ci ngëlëm ngay réere dëgg la njàccaar bi wonal ma ki aw yoonam mhm. mooy li ñu bëgg a def nii te ñun xamunu waaye li ñu xam na fexe ba ñuy xamul mhm. dimbali ku ci xam ne xamat yi dafa am mhm. du reewande ak yàqu li mhm. nga xamul dëgg la ñàkk xam dina ñëw farañsaaye ci yar bi ki la yar dina la yar yar boo xam ne daf lay bàyyi ci li la neex rek ngay tañax tañaxi di dem nga war a fekk ñaar ni ñu toog nga bëgg a jaar si diggante mun la ee eh, fii bu fi jaarati jigéen war a def nangam mun la kaay nga ñëw mun la bu defaree nangam as du def lii nii bàyyil di la jàngal àdduna mais am na ñoo xam ne tonton dañu lay jur di la yefal te duñ la yar duñ la teg ci yoon duñu la wax dañ lay bàyyi ngay tañax tañax rek ndeyaa tey ñàkk xam boobu day dem ba ci jeeg ji nga xam ne day nekk ci dañuy nekk ci seen biir kër yi da nga ci gis jeeg boo xam ne day nekk ci këram yor jëkkëram dara manqué wul moo xam bu dara manqué wala am lu manqué ci moom sax mais la mu yor ci këram da koy xeeb génn ca mbedd ma di wuti far tey lan ngay wax jigéen ñooñu. loolu maman Marème ñàkk ñàkk a doylu ñàkk doylu man pour man da koy jur ak ñàkk xam aussi. parce que comme li ñu wax rek nee nañ nit lu mu xamul dañ ko xamal dañ ko koy xamal nee nañu boo xamul xamati xaw laa rey gis nga jigéen buy dugg ci néegu sëy comme ni ma ko waxee woon rek ci émission bee passé dañ ko war a conseiller yedd ko ñaax ko. wax ko loo xamante ni xamu ko parce que fa muy dem xamul lan la fay fekk dund boobu muy dem di ko dund dundi mosu ko dund c'est la première fois muy dem war a war a war a dund loolu kon yow mi nga xamante ni yow yaay yaayam yow mi ko yar yow yaa war a def ci moom lu bëri mënoo def ci moom lépp nag mais yow nga def ci moom le minimum nga wax moom yeddu ko ci côté yi nga xamante ni yëpp mooy yi nga xam ne sens euh, priorité yi xamante ni moom moom la ñuy gën a soxla côté yëpp mën nga ko ci yedd wax ko li ci nekk yëpp parce que yow mi yaay yaa ko ci jiitu pour man tamit comme xamante bi ñuy wax ni ñu jëlee thème bi rek aussi tamit loolu aussi tamit xamadi tamit da koy jur. lan nga xamadi di jur foofu. li nga expliqué léegi. ci jigéen waaw. xam nga xamadi mën na mën na bañ a jur mën na mën na jur loolu. parce que nit mi ngi def loo xamante ni xamul conséquences yi li ko ciy fekk xamu ko comme tonton Ngaye li ma ne na politiciens yi bu ñu demee tey ba ba bay nekk ci campagne dañuy seeti borom xam-xam yi nitu diine yi kon da ñoom dañ leen di xamal loo xamante ni xamuñu ko mooy conseil yi ma la wax rek parce que boo demee ñu wax la ñu ne lii boo ko defee lii moo la ciy fekk lii lii moo la ciy fekk lii baaxul waroo def lii nanga moo la ciy fekk buñ la waxee loolu nga nekk nit di ngay da ngay topp règlement yi ñu la jox xam ni yow lii boo ko defee wàcc nga yoon lii waroo koo def mais nit mi ngi def loo xamante ni xamu ko maîtriser ko te xamul conséquences yi waaw. Euh, macha allah nit loo xam ne xamul conséquences yi ko ciy fekk lan moo ñëw ci kanamam nit ki di def loo xam ne da koy nëbb. yor sa téléphone bii dugg ci biir néeg si sinab sa bopp mu yegg ñu envoyé moo xam sa far la moo xam sa borom kër la yow la moo tax xalaatoo ne lii téléphone kase la mun na xëy écran bi tuuru sa borom kër yóbbu ko ci defarkat ba defarkat ba su melee ne Babacar Diop nag du ko publier dégg la <laughs> ne ah <laughs> wala mu def ko yóbbu ko feneen kon ñun jigéen ñi nañuy bàyyi suñu xel nañuy suuraale tonton Ngari da ngay gis jigéen boo xam ne day sëy si toggul lu neex waxul lu baax boolewul mbokk ka mu koy dem ba sama borom kër laa bëgg nga fasal ma ko fii lu ma ko wax mu ne waaw sama wujj bi ci kër gi na dégager génn moo ko ay doomam est-ce kooku xam na. boobu moom du xamadi ak yàqute la ba noppi ragal teg ca dafa ñemewul ndax boo ñemee ci kujje boo ñëwee da nga rek da nga koy da nga koy wane maa la dàq togg maa gën a joŋe maa la gën a saf loxo maa gën a nàngam ak nàngam ngeen jongante ba xam kuy raw loolu mooy mooy mooy mooy ñu tudd performance yu jigéen mais boo duggee ci yeneen yi euh, doo ci am ndam parce que bu sa jëkkër wàccee ka nga fa fekk deseeg yow da ngay xam ne lii du sa ndam dafa am foo jaar ba lii ne bu la mayoon cent cinquante millions du neex boo tëddee da ngay xam ne ay waay lii de sëriñ ma xoo ma ko lijjantil loolu du ndamal jigéen da ngaa war a bëggee sa jëkkër ba mu yëkkati àdduna dana am kon daf ci am loo xam dafa wuuteeg ñàkk xam loolu leneen la loo xam ni euh, ak yàqute daf caa bokk ba tax na kenn ku nekk war nay góorgóorlu ci wàll wa mu ne ba xam parce que man gis naa jigéen ñu euh, sama sëriñ ba oustaz Xaali Gay euh, dama daan dem këram tàkkusaan gu ne mi ngi ay jigéen ñu mag di jàng si ba ko laajee mënuma comme ñoom seen ndaw defuñu alquran nañ ba doon mag seeni doom bi leen jàngal ci alquran ñu ne nañ jàngi ñoom it alquran parce que xale yaa leen giir xiir leen ci jàngi alquran ñu bokk seen i këyit ñëw di jàng alxuraan loolu xam nga mag mu nangu la man ko sama diine rek coon na mën naa dem dabu ko loolu mooy xaw ma woon naa xam yi kon ñàkk xam dafa bari loo xam daf koy dugal nit ki yow mbedd mi dañ fi tere ko fi jaar nga dikk jaar fi da nga xam tey euh, li ko dayaa waxee boo demee France ñu def fi sens interdit def fi interdit de passage nangam ak nangam mais tey ki dem makkatal mu karam wala arabu saoudia yow mi jàng France mu mënoo liir kon ki jàng arab moo la mën a gindi foofa gis nga xam-xam yi ni mu wutee kon mel li wër booy nit na sàkku ci xam-xam ci wel wàll yëpp moo tax euh, Babacar Sam Ndeysaan maa ngi koy nuyu day wax di loo jàng-jàng diplôme yoo mën taam boo ñëwee ci ñu lu jàng laa dina parce que boo amee diplôme te jàngoo àdduna doo sori mooy gars yi ngi gis ñu am ay problème yëpp parce que jànguñu àdduna àdduna mooy école bi gën a rëy école bi nga xam ne moo am diplôme bu kenn amul soo ko mokkalee mokkal lépp fépp ak ñëpp soo ko mokkalul nag mooy xamadi gi da ngay réer rek mooy coowee ngeen bu gerew amee wala nangam gis ko waa ju génn xuutar xuutari jël xeer sànni ñu koy puus ba jàpp ko tey suba maa ngi seetaan si TikTok def non euh, Facebook benn waaye ndaw saa ngi koy interroger mu koy wax li mu daj ca kaso ba munu ko waaw léegi bu bu manifestation mu bul yeggale tur bi bu yeggale dama dul dem kenn kenn mëntu la wax moo génn suñu ko dem bokk ci parce que xamul woon léegi xam na lan moo xew foofa kenn muntu ko caa giir ba mu dem fa te ku ko déggal doo ca dem. ci dem ba tax na sax nag dafa war. gis nga man du ma nekk yetu kenn du kenn du ma xeexal kenn. damay xam sama bopp personnalité nit a koy wutal boppam mbéjum kanam nit a koy fajal boppam du doo toog sa kër. lekk sa yàpp naan sa meew dawal sa oto bu neex taal sa clim man nga may teg ci mbedd mi ma lay sànnante ay xeer defuma ko xeexu xeexuma kenn su ma amee lu may xeex ma toog suñu biir kër waxtaan kafre su ma amee sama attaaya naan ndeyaa tey da ngay gis jeg bu ne faj patul làggiwul dara manqué mu nekk nit ku yàlla matal mais tey jii pour mu dem uti fóot mbaa mu dem ci marché bi jël ay bagage jaay wala mu dem di déedéet day toog yor téléphone am Babacar ça va ci loo nekk man de seen laa bëggoon ah ku ci mel ne Babacar ne ah fekk ma sama appartement nangam sangam am ci ñoo xam ne guddi dañuy taxaw ci buntu restaurant yi sama càmm yi man de lu ma reeree laa bëgg manqué seen bopp xas lu jigéen ñëpp jigéen ñi tey lan nga leen loolu maam ma ne ma xamante ah, mu ngi ci mais aussi tamit bëgg lu man moom laa ko jàppee. parce que yow jigéen comme ni nga ko waxee nee nga mel ni mu war a mel ni fàcc am doole mu am lépp. Mhm. war a mën a dem liggéey euh, bëgg a bëgg bëgg jël yoon bu yomb boobu loolu. bëgg lu yomb la. parce que yaakaar naa ni koy ya koy yàgg ñaan bu bu nekk bu yàggee dina la jéppi te bu la yàlla mayee nga am loo xamante ni mën nga dëgërël na la ba nga mën a dem wuti leneen loo def. yaakaar naa nga dem def ko moo gën ka ngay ñaan parce que koo yàgg ñi ak yéen def lu bon di taxaw ci ci ay noo ko waxatee sax. ci buntu restaurant yi di ñaan ay ndéeg xam nga <laughs> yooyu sa bopp la te jigéen dafa war a am am fulla am personnalité ci boppam ba warul nangu kenn ku ko yàpp ah man de boog am na ñoo xamante ni moom ñaan wàññiwu leen dara defu leen dara ñoom ñoom defuñu ko defuñu ko problème mais am na ñoo xamante ni daf leen di diis que ñuy naan nit ki may ma nit ki defal ma li nit ki defal ma laa boo yoree sa ñeenti cër yëpp di fonctionner soo xëyee wutil loo def balaa ngaa wàcc yàlla suñu borom dina la wërsëgalee loo xamante ni diñ ci mën a faj sa soxla yi nga am waaw euh, war nañoo mën a góorlu bu baax a baax a baax ndax nit a ngi fi toog di xas jigéen ñi te genre jigéen ñi mel noonu rek moo koy waral am doole dara manqué wu si yaw nga war a xëy wuti fóot baa nga jaay wala nga uti bale tribunal yaa ngi fi bureau yaa ngi fi foo liggéey su weddee nga am fa sa dara moo dàq mais topp di woyaan ñaan taxawaalu nekk si mbedd yi late ci ay magum jëmm nga leen di romb ñaan jigéen ñi léegi mooy loolu nangam sàngam loolu doy na waar nañ ko bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax ndax dafa nekk loo xam ne day yàq suñu der ñun ñi nga xamante ne nii ay jigéen lañu. Mm-hmm. tonton Ngary gis nga réew mi fi mu toll nii ak ni mu doyee waar réew mi jaxasoo na kenn xàmmeetul fan la ak nan la ak naka la dëkk bi doy na waar tonton Ngary dangay gis góor goo xam ne day nekk ci këram nekk fa ak soxnaam ak ay jabaram ak ay doomam yëpp mais daal euh, maanaam pour xam ma xam ni mu war a toogee ci këram ak ni mu war a uufee ay njabootam day des day nekk benn genre góor boo xam ne daal maanaam. dara dara dara tekkiwu ko ci këram kooku xamante la wala dafa bindoo noonu wala daal nu mu fa demee noonu. waaw kooku moom euh, dafa am taayal mais ci li ngeen wax léegi ci jigéen ñi parfois situation oblige euh, léeg nit def loo xam ni bëgg ko da koy def ba noppi dugg ci ruq jooy bu sañoon day doon jigéen ci gën mais parfois njaboot jiirtal la ci genre góor yi ngay wax ne ci kër. du ñu yëkkat duñ tëral euh, sa sa sa jabar sa dund ak sa col moom it xëy na fipp woon ci ay juróom ngir yow mënutu faa dellu ñëpp banañ ko euh, yow it nga doon euh, góor goo xam ni xaalu mbëpp la amul kenn njëriñ mu ne su koo toj mu ne su koo lekk muy koo xam ni day dem ba xiirtal jigéen ka njabootam a ndékkiwunu jàng nañu wàcc añunu fas yéene wu reer yàlla mën na ko dimbali mu génn diw taseeg góor gu gu yaa gu tuddi ku ku baax mu dimbali ko te yàlla tax mën naa des ak saay-saay saay-saay boobu saay-saayul dañ koo saay-saaye dafa dañ koo mas nax nax yoo xam mu ci la muñal dafay am loolu moo tax situation oblige parfois mu jox la boppam ngir njabootam te baaxul sax ci njaboot ga mais jigéen mënut a toog suba ba ngoon ba guddi ay doomam lekkuñu góor mën na ko parce que day jugem yoonam mais jigéen munu ko parce que doomi ci moom la ñu jëm yaay añaguma wala yaay réeraguma kooku amul jigéen ju ko mën a supporter mooy parfois mu dem defi ko euh, parce que rus naa dem ci njabootu seen seen famille ñu may ko parce que rëy na ko ndax na ma demee ak ñoom mais dana gën ñaan nit sax may kooku moo koy exploité ah soxna si mën naa ne de mais bon su fekkee mën nga dem gàll ah. mille 000 francs nga fi ak ci saa si 20 000 yooyu doon na añ suba doon na ndëkki doon xale yi. mu accepté ko mais neexu ko yow boo ànd ak moom dem sa kër sa nga xam ni li nga koy bëgg def neexu ko mais dana la ko def ngir gam gam bàyyi te lekkunu li muy njëkk rek bu ca paree mburu leen jëndal wala lu ñu lekk jox leen ko xale yi bu lekk xel mi dal mais dana xam ni lii néew mais nag loolu dafay jafe dafay jafe dafay jafe de recherche parfois non non man non mën ngaa liggéey mais dama ne soo ko si am jëkkër na liggéey yor la nag sëriñ bi waa léegi xam nga mais ki bàyyi xam nga tey hmm. maam Marème mën naa bëgg Babacar ay mbokkam ni ko bëggunu Babacar mu ni man bu leen bëggee bi mbañ man maa bëgg moom lay séyil man gars yi ko demal nga dem sëy Babacar amoo fu la neex xam nga ni sa ngor mayu la nga dellu ci kër ka sa ngor mayu la ñu fekk la ci mbedd mi ngay bal duñ ko na yow yaay rëy rëy boobu parce que nag laa terewoon nga të danaa la par action lay doon parfois occasion lay doon boo xam ni ci lee am bëccëg bi tax mu def ko mais bëgg ko bokkul ak ki nga xam ne ko def liggéeyam noo xam ne ko def liggéey mooy ñooñu defal dànk rek ma ñooñu bo ñooñu pour nga dugg seen néeg boo yorul cinq cent mille bokk ba mu doofu dugg xam nga liggéeyam la ko parce que gaara na boo amut tabax na kër goo amut ci ci boppam la ko amee bokku la ak ki nga xam ne da koo da ko làqar war na nag nga dem gis liggéey balayage nga dem bale ca ca fekk ñu fay la 30 boo ci bëgg yor sa njaboot la ñu ak mbaaxam soo koy da ngay fóot fóot mi dina dem ba yow boo feebar doo faju fóot mi du la faj parce que nañ fexe nit ñi ñu amee luñ jàpp mais yooyu jigéen ñi bari ko def mais du liggéey parce que am na temps boo xam boo fa toog dootoo ko man sa yaram santé ko boo feebaree fóot mi du la faj mais du lu giirtal kenn ni ko del njaaloo pour dundal sa njaboot rafetul mais dama ni parfois action lay doon boo xam ni moo fa sës léeg nga tasi góor gu baax nga wax ko problème bu yëkkati 15000 francs ba 20000 francs nga ne soxna si xeeb naa ko dawal dawal kër gaaw am na ñu mel noonu am ñoo xam ko parce que dañ la léegi nga dem ñu may la 15000 nga dem nga bari ne koo xalaat la am na suñoo xam ne nii ñoo ko tay hmm. am na ñoo xam ne ñoo ko tay hmm. partu ñu laaj bu njaboot leen jëm bono leen ci dugal ak bëgg lu yomb bëgg nañ sën bu baax bëgg iPhone bu baax bëgg a takk ay or yaa nga ci niveau bu mag xam lu ma la mais tamit tonton yi dañ ne laa taqrabu zina hmm. bul laa jabaru jàmbur hmm. mais yow nga am sa jëkkër di sëy ci biir kër gi nga jural sa jëkkër doom yi hmm. amul mënatul ma dem di njaaloo wala ma dem di taxawaal pour bëgg a dundal samay doom wala parensaay su ma amul d'accord ma loolu mais léegi à ah, ak kan moo am faute kan moo am faute ba léegi amoo kan am faute ba du góor gi ndax góor gi dafa sol daalam dem yow miy jigéen ji kan la ñuy bindal bàkkaar bi kan la ñuy bindal bàkkaar bi yow bi kan la ñuy yow. doom yi li nga leen di jox après fan nga leen di dugal. léegi loo doyee góor gi. yow même loo doyee góor gi. da ah. dem ko dana takk pour nga sëyeeg waaw ak ah, dem nga ba que noonu la. est-ce que tas noonu la ba mu neex nga la bataille loolu action lay doon am ñoo xam ni dañ koo def liggéey dafa nank rek di waxtaan am ñoo xam ne dañ ko def liggéey ñooña dañu amul seen carte ah libre xam nañ fan jëm oto la ñu yor am na ñu ko xam nañ seen bopp ñoom bokkul ak ki nga xam ne benn infraction moo am dafa am jëkkër ñoo xam ni ah, dama yàlla baal wax dëgg yàlla eh, xam nga yaa yaay dugal sa jabar ci problème yu mel noonu parce que takk nga jabar am nga moom juróom-benn doom am fu mu jëm ak juróom-benn doom ba noppi nga bàyyi ko yow léegi loo for. bàyyi ko bàyyi ko njaboot loo for jënd ko jas neer loo for jënd koy dal loo for yóbbu ko kër kër kër ndayaa jaaxaane ko fa. léegi sa jabar dem di jaay boppam pour dundal ay doomam. du du bis bu ne. ñu mu dal waaw waaw tonton li ma lay wax yaa ko gën a xam na nga dëgg bal bi. xaw dëgg bal bi teggi sa tànk. xaw ma li nga wax de. teggi sa tànk fi nga ko teg dama ne la am na jigéen yoo xam ne ñu ngi am jëkkër di am far d'accord nga loolu waaw wala déet. léegi yaa ngi wóoruma daal wala wóor nag. dégg naa ko dégg naa ko dégg naa ko rek am jëkkër am far nekk ci biir kër gi sa dépense du doy ñu tëgal la ci fayoo ndox fayoo courant fayoo lu day nekk nga ta nekk di ko bon tàmb lay wax xam nga ko dangaa dëgg sa daya am na la fa manqué am na la fa manqué ku góor ki est bëgg na xam nga tabaxalañ la dina lañ la lépp yaa ngi nang waaye am na lu manqué lu ñu mun tabax mais tamit est-ce que bëgg na tamit boo ki muy sëyal ñaar yi mën na ci nekk xam nga mooy man ngaa ba ñu bëgg nda waaja waaw waaw bay defi leneen waaw waaja mën naa man boppam it mhm. ba ngay leneen ah doy na waaw waaw léegi yow bëggoo waaji bay defi leneen léegi lu tax munoo tas dem nekk sa bopp loo xam ne doo ci am bàkkaar tonton Ngari boo xëyul suba amoo dépense ñaata lu ma la. maam Marème boo tasee dina tax nga sàcc téléphone bu Babacar. maam Marème jaay ko pour dépense suba. lu xaar après su ma sàccee téléphone bi su ma feeñee fan laa jëm. loolu léegi man mi war a jug. ku xam koy xalaat ku xam dem taxaw ci mbedd bi pour joxe sama bopp pour am lu ma dundalee samay doom ëllëg damaa yor ay doom waaye yooyu ëllëg mun naa ko romb ci mbedd waaye kii nga xam ne mooy loolu soo ko woo léegi jël ko ki nga xam ne nangam gis nga góor ku mu tax nga dem di jaay sa soo ko def ko yaa xam mu nekk sa jëmbi bopp su yàlla bindi bàkkaar bindal la la xaar action samay doom ak action action taxul bu di ko def ndax action taxul kenn dem ci police benn la lay naa ni mm. jàppale euh, a yàlla <laughs> ko yàlla bu la loola yàlla bu la loola song ma ko yàlla bu la métti woowu song tonton Ngaye na fi ne man ñi jàkkaarloog man di ma seetaan barki sëy nga xam ne jigéen di dunda lu nekk ci biir xam nga lu ca ne sa nawle ak say mbokk ñooy tax am na yenn yoo xam danga koy jomba defar sa bopp yow ba ma la xamee ba tey ñaata at la tey su ma defoon dara dañ ne la karangaar yi yow maa ma rek moom ngay àndal nangam ak nangam di la naqari. yàlla baax na yàlla baax na yàlla na. jeex na tàkk na eh, Ndeya dégg nga tonton li mu wax wax na wax yoo xam ne wax yu am solo la ndax nee na parensaa moo la ci dugal action dina ci dugal nit d'accord naa loolu ndax ñàkk xam mooy ñàkk xam rek nit dem sàcc alalu jàmbur mos a dugal ci mais nag deel xam balaa yow jigéen bi ngay dem di joxe sa bopp ngir say doom bu dee góor gu yaafuus la tasal nga nit gis nga yàlla dafa bind gën a bind dee te dund ak dee ñoo ànd te moo gën a foor waxatuma la say bu te xam ne day tas man benn góor tax may def naka su du noonu xoolal dañuy mën loo xam ndax yaa jigéen ñi nan ah, nga wax rek nee nga da ngay mën a boo mënul nga nga tas moo gën ngay dugg ci loo xamul man tamit comme noonu la comme noonu laa noonu laa noonu laa leen di conseillé. mën naa tey maa joom mi. kenn musu ko. day na waar ndax mën naa tey moom sama émission bii. kii nee na nii kii nee na léegi. coono boo ah? tasee. am na ñoo xam ne duñ la te ñu ngi nekk ci liñ ne am na. yéen a jeex. ah ñu ngi def lu leen tee. Mm-hmm. moom daal mi ngi noonu rek fii moom tonton Gara xamal la man mënu ma jàpp kenn mënu jugé kenn. parce que ku bëgg a lijjanti problème mu keneen. bu yàggee dama yaakaar ne yow da ngay gaara parce que yow booy wax fii yow li ngay wax fii di nga gis nga keneen kuy dund lu gën a garaaw lool. loolu lépp moo tax pour man kenn mënu kenn mënu jugé. xeetu xeetu xamat xam nga xam boo xamul. Mm-hmm. mooy dugg ci scandale yu bari ñenn ñi parfois naa la situation muy obligé gis nga tey ki jaay boppam fekk fa mu taxaw nga ne ko danga jaay sa bopp dana xeex yow bu ñëpp yow. te lu kenn bëggu ko. parce que bëggu ko. naankatu sàngara nee ko mandikat bi. dana la saaga ba nga tooy. parce que bëggu yàlla la neex lu waay ne yàlla la neex bul jub mukk basante sante ko kenn ne li alhamdulilah rabbil alamin nit dem na bay bëgg a dee dëng. jub buy bëgg a dem barsàq dëng nit dëng ba ni dee moo des mu jub ba ñëpp di ko siyaar ñun amoon nanu amoon nanu suñu jamono gàll gàll gàll gàll lañ ko mën a tudde euh, dem na ba kenn ci kër kilifa yi pour bañ a stigmatiser jël ko soxna ñun bu mësaan a dem foofa ci jamono yi dem fa fekk ko fa euh, sagale woon sagale mais tey mënoo ko mënoo mënoo ko xool bët boobu baa nga xalaat ko. Mhm. ah soxna si maa ngi lay ziar de maa ngi la ziar bu baax. nga ree yow noppi. Mhm. mais mi ngi toll ci beneen niveau boo xam ni tey boo parce que ñaa ngi ko sukkur ak mhm. parce que loolu yàlla bindoon gis nga fii li ngeen jaar baal ngeen làmbaay dem ngeen euh, libidoor partout mais tey mi ngi ci beneen ñu koy wax level lañ ko tuddee ca kaw. ñu koy ziar ko jox addi mu jur ay doom yu sant sant woowa. ko xam sax la dépassé ko moo tax yàlla mooy defar jaamam bi nit koy naan sàngara neexu ko boo leen gis day sànni dafa bëgg si civiliser parce que koo ci waxal mi ngi lay wax euh, ay mais bu ko dikkee mu jëlee ko naan ko tey ñu tudd ko ku bon ki déedéet yàlla amul lu bon mu bind ñëpp bu amul yàlla amul lu bon de ay jikko ñooy am njuumte ñàkk xam ndëngate koo xam waññi ko am ñoo xam dañ leen ko def ñu ngi ci néegu sëy ñu liggéey nit ñuy njaaloo te nit a ko def. ñu ngi ci néegu sëy di sàcc nit a ko def. góor a ngi lu mu yor da koy naana ji wala mu njaalo ji ko dañ ko ko def nit ko xaatim yooyu rek boo ko munta analyser léegi da nga da nga daal di tooñ. ni amul benn jigéen. buy jox nit boppam di ca jooy nekku ko. li tax parfois euh, dafa naan Babacar fekk na ko di waxtaan ak Serigne Sidi keroog mu joxe ci exemple Serigne bi. mu ni boo bu ngeen xoola doom yi nga xam dañoo ñëw maanaam juddoowu ci sëy seen réussite day gaaw te ñëpp ko constaté bu dee école ba ñoo fa man alxuraan ba ñoo fa man métier ba ñoo fa man simla saa ñu taxaw doon chef xamul tax nan jotantee moo moo moo neex na laa ko mën tudde yaay ji def koo nopp papa ji nopp ko ko wax diw mu la force na fa yem yow mais du maag moom dañuy bàyyi duñu bàyyi gis nga boobu doom bu fa judd parfois mhm. gis nga ni mu ni muy ubbi ko mhm. moom laay wax toujours ah, boo génnoon fi doom yi muus topp la muusu ndaw yi da nga koy dàq mais foo fekk ay xale yu bëgg a xaj nga nga kaasu ba ngeen rey xaj bi mhm. parce que xaj moo nangul jëkkër ja bokk noonu laa ko mën a tuddee jëkkër moo tax am na jigéen ñu baree ngi def na ko sul noonu bul ko jugé de wallaahi wal kitaabi am nañu ci yoo xam ne dañu ko def am ñoo xam ne seen jëkkër moo mel na xaal bu nëb te doxoon nañu seen waa kër mëntuñu dellu ca kër ga ay magam bàyyi nañ ko amutu fu mu jëlee te xiif nga koy bëgg a rey te waa ji lu ñu indi ci kër gi mënu ko fuuf ya góor gu yar taata. <laughs> loo ci man doo dellu. doo sa yaay ci biir kër mais day jeex ñi dogoo. ndax ba tax nga dem bi def na ko su du noonu bàyyi say waajur. maam Marème déggoo fi demal nag am ñoo xam defuñu ko àdduna action doon parfois. dama la jox exemple bu gàtt boo ko seen dawal naa nga rek ñu sa ngi sëy ni ma la ko waxee xiif dugg na kër jëkkëram mi ngi toog jéemul ci xale yi dara xale yi xëy suba ndékki ak yow yaa ngeen lekk ñu de 13 heures ñu wàcc di xool yu waa ñu gis lépp tëj ñu yaay damaa xiif amul jigéen lax ju baax di de amul ku ko mën a muyaale seet na seet fan laa war a dem fi mu nekk ni lebi fa koñ bi du ma ko man parce que bugguma ñu xamal ma suñu waa kër moom bu xaalewuñu ko ngoon gi dox ba timis gi maase ñu laay duñu reer dama ni boo mënee sàcc portable jàmbur ci nit laa wax da ko sàcc jaay ko loo ci góobee gar ko parce que njaboot gaa tax am ñoo xam ne sooy yoon niw ci loolu jooy leen xiif leen u saw fu seen yoon kooku góor gu bon la ak jigéen ju bon mais su génnee tolloo ngaa ne d'accord ma ak yow nga dem bëgg baax tax nga dem ji def jaxe sa bopp pour jox sa doom ñu lekk nga toog léegi ñu muñ loo leen jigéen ji bon nga waa tonton Ngari muñ lan lay jëriñ kon nga muñ say doom ñett fan lekkuñu. déedéet Seydina Mouhamadou Rasulullah ñaata yore daan topp ci. ah Moustapha ngay toppandoo ci loolu. moom la tax mu gis seen yaram. Ah. waaw am nañu. waaw daanañ toog ñett fan lekkuñu. waaw tey boo doon takk takk jigéen bi taxawaaru. man mën naa ko takk jubbanti ko. jubbanti tonton Gare bala mu waayee ko xam nga dama laa. yow tonton Gare dafa la bëgg a wax nii tonton Gare nga takk ko. barke sëñ Bamba. waaw waaw tonton Gare yow man maa pare ci Sénégal xam nga waaw ma ne tonton Gare déggoo waxam ne dafa bëgg a wax ne rek wax na benn wax fii nee na dafa am koo xam ne dañ koo jàppoon ci kaso ba tëj ko fa ñu interview ko laaj ko mu ne bu ëllëgatee waxatuma la sax ay xeex waaye ay mars waaye dootuma sax jaaral ci loolu c'est parce que dafa métti ci moom moo tax mu moytu ko la moo tax yow mos ngaa gis koo xam ne def na benn affaire am lu ko ci dëkkal mu delloowaat ko dayaa boo tegoon sa tànk ci xel day doo ko yëkkati mm-hmm. ah bu fekkee dangaa toog seen kër guddi jot nga woo sa waay mu ñëw indi la jibi bu ne muut indi la boisson indi la ginaar bu ne muut joxe danga koy bàyyi doo ko ba waaw bu fekkente ne boo ko woowee mu dem jëndal la fii ak fonde wala mu dem jëndal la doo ko woo. kon yow déjà yow déjà yow yow loolu nga wax déjà yow. maam Marème yow loolu. damaa nanguwul li ma la waaye xam nga ko. man li ma xaw ma Serigne Touba jëwal dama ne yow loolu nga wax rek dèjà yow yaa ngi ciy dugal intérêt mi ngi dugg ci digg ci biir parce que nee nga sax waaye bu ñëwee indi la dibi bu ni mu doo ko bàyyi beneen yoon bu ñëwee indi la fondé nga xaw ma lan ko nga xas ko kon xam nga foofu ñàkk góore am na foofu mm-hmm. parce que nit ki bu fekkente ni bu amee bu amee nga nga nga nangu ko su ñàkkee nga bàyyi ko xam nga loolu dèjà góore di la gis nga ni comme toto ngaa lim la dafa am yoo xamante ni situation moo lay obligé am na jigéen yoo xamante ni natt moo leen dal am na ñoo xam dañuy génn ci sëy man gis naa jigéen bu génn ci mm-hmm. yor ay njabootam lu dul jeex jëkkëram toppatoowu ko toppatoowul ay doomam moom mooy dem di def naka su dul noonu di dundal ay njabootam mm. gis nañ ko fi ba taay te am na fi mm. kon kooku bon dugalu ko ci situation moo ko ci dugal parce que amul ci lu mu jàpp amul liggéey amul jàng amul amul amul amul amul loo xamante ni mën na ci def loo xam ne pour yor njaboot ndem góor la dund di metti ci moom waxatuma laa jigéen mm. ndem góor la dund di metti ci moom day dem ba day sonn jigéen moo koy jàppale waxatuma laa jigéen rawatina nga yoon njaboot goo xamante ni amoo foo wéeru amoo ko la def dara ya ngay la ngay fortaatu la yàlla xam doy na am ñoo xam ne situation moo leen ci dugal comme na tonton Ngari foofu la la bëgg a waxee. léegi daa ci may benn xisa. Mhm. lu ma fekkee la kenn kii doo tudd benn tour na. kii mhm. ci fii ñu dëkk la. Mhm. papaam du ko tuddoon yaayam yàq ko. fii fii à sa papa. li tàmm mooy sol bu rafet. voilà xale bu cekkete bu réew. réew du koy tooñ kuy tooñ dof la. mu dem ba papaam retraité mënatu ko. waa kër gi comme paa bi da ko tegoon ci kaw ñu ñu déserté ko ñoom it am yu bari yu am amatu ko te rus naa ñaan. mu mhm. commencé yooyu nag ngay ñàkk wéeruwaay sax da ngay sonn waajur doo am dara. ci baar la mujj. Mhm. ci baar. Mhm. li ma lay wax nii de. ci baar la mujj. benn bis kuy nekk ci baar ne moom góor fekk ko ci baar. mu mu andil ko lim commandé munu ko après nga ñëw ñu waxtaan mu pare munu ko ñëwal toog mu toog. ne ko aw ma temps parce que mun ko fii ngay toog ba ma pare. ndaw ci toog waaw ñu naan naana ba pare mun ko fan nga dëkk mun ko lu seen ci foofu dëkk mun ko force nga ji. mu ne kër ci baar bi. gars yi ñu mu àndal ko soo ne kii dama koy takk jabar ñu ni waxi mandikat la moom moom moom moom ba xale bi ñibbi seen kër otoom la taal dugal ko ci ba ci kër gaare fëgg kër gi ñu ubbi mu dugg paa bi dugg paa bi génn carabine da koy fetal mun ko ñun ñaar yëpp ngay fetal. c'est-à-dire pas risque et puis ci kër nga leen di la ngay fetal ko def yi ñu dañoo màndi mu expliquer situation bi ñu ne ko fi bàyyil xale bi day dem ndar mission dana wàññi ko dans quatre jours dafa lu mu bëgg a wax ñu bàyyi xale bi néeg yaayam bés bu ñu seetaanee émission dañ xam kan lay wax mm-hmm. mu dem mission Saint-Louis quatre jours ñibbisi cest mm-hmm. di normal yow ci kër gi nuyoo waa doon beneen nit toog ak paa bi expliqué ko paa bi ne ko wool nijaayam may la ko man dum parce que man geddoon naa ko ba pare nga wooye nijaayam mun ko heure boo soxlaa nga ñëw may la ko muy léegi téy leen ko ci kër gi mu changé yére bu mu dem fet bàyyi ko xaalis te ko maa ngi dem Dakar dana yebal ay nit mu dem quelque jours mu yebal ay sëram mu dawale oto ndakaaru ñëw ak ay wëli sag yëpp takk ko takk bu rëy pare yóbbu ko ndakaaru jox ko kër R plus 1 ne ko yéeg ne ko léegi lan nga bëgg mun ko ku may jàng alxuraan rek laa bëgg mu embauché benn pël Fuuta dañ xëy ñëw jàngal ko wàcc su ngoonee mu ñëw jàngal ko mu tari bàyyi ko wutal ko kuy toog wutal ko kuy fóon noonu lañ nekk nekk ba am benn doomu tudde ko xam Muhammad ñoom am ñaareel doomu tudde ko papaam keroog bi mu dawalee otoom ndakaaru moom ko sox si daal wax de ndakaaru la ko dawalee muuru na mu mel ñëw bu ci kër gi gaare wàcc papaam ak copain yi ci buntu kër gi toog mu jox leen ku nekk loxo papa nag kenn mënu ko mën a diw fi papaam toog day jooy ban ko góote papaam ànd ak dugg ci kër gi kenn ku ñëw xool ko da ngay parce que dafa changé tellement nit ku nit ku set mu ko sa sët yaa ngi nii sa turandoo baa ngi nii bi muy dem ne papaam nañ dem Dakar nga ñaanal ma ci kër gi papaam ànd ak moom dem Dakar léegi paa bi xam nga lay ñëw si ko soo amee ko gaañu ku muntu ñàkk mu nekk à l'aise yóbbu na papaam ñaari yoon màkk moom dem na cinq fois màkk jëkkër ji ubbil ko magasin ci biir kër gi c'est-à-dire lu mës a def génn ci moom parce que li tax mu wuti alxuraan wuti ko jàng jaamu yàlla lee neexu ko mais action la woon li may wax ni ñooñu mën ko saraan dañ ko xam tey ba tey mi ngi ba tey doom yëpp ay kilifa lañu ngi jàpp njàmbur parce que ñoom marché woon jamono mais dundagate ko duwaloon mais papa mu ko suuf lu attuñu woon dem ba yàgg joxatu ko ko rus na koo ñaan mu dugg ci domaine boo xam ne domaine am mais nit génne ko ca domaine boobu moom. ne ko loo neex defal mënu ko jub doomu laa def gis. Mhm. xiisa la. d'accord naa ci li nga wax ci xiisa. histoire la bu réel nag. muy histoire bi nga xam ne joxe nga ko muy bu am solo mais tonton Ngaar ndegam jàmbur moo la mën a fekk si baar yóbbu la ci say soo demoon ci koñ ba soo toogee ci sa sëy nga sonn ba war a dem defi ji lu soo demee ci imam ba wala nga dem ci chef de quartier ci fi ñu ñëwee ci waxtaan bi soo demee ci nit ku baax nga ne ko man ko damaa jógewoon suñu kër dem sëy ji sama sëy am na mu demee te bëgguma defe lu bon ma bëgg nga yóbbu ma ci sama yaay mu jéggal ma wala sama papa kooku dina la yóbbu ñu jéggalu nga toogaa seen biir kër ba gis jëkkër ju baax te doo dem di jaay sa bopp toog toog. temps bu gudd temps bu gudd loolu gis nga nag. kooku nga xam ne mooy xiisa bu nga joxe léegi si am na ay doom am na jaar-jaar mais foo ko xoolee sa xel dem ci jaar-jaar boobu waaw dëgg la ndax gis nga lu bon mhm. kenn ko fàtte man mii tey su ma ni defoon lu bon wala mu wax ma lu bon mhm. donte ko ñu ngi nekkaat ci jàmm lu kaf ga neex neex lu reeje neex neex sama xol bi na ma bis caga nga wala newoon na ma dëmm sàcc la mhm. moo tax gis nga lu bon du mës a baax kon nañuy bàyyi suñu xel bu baax bu ñu góor tax def lu bon bu ñu bëgg sëba tax ñu def lu bon ku yàlla bind ci sa jëbiira di nga mooy yàlla di nga njaaloo par la force bu dee yaa ngi sa sa pochette bi cinquante su ko ci yàlla jëfee di ko ci def mais dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xamante ne nii déglu ma dafa am ñoo xam ne tontongaa defuñu ko pour nattu dañ koo def pour seen coobare bopp ñoom ñoo ko bëgg seen bopp ndax tey boo ñu doon wax solution yi nga xam te ne mooy xamal tey lan dañ ci mën a leeral waa xamadi mooy comme ni ñu wax rek nee nañu ku xamul xamadi ku xamadi ku ñàkk xam xamadi xaw laa rey nit ñi nañuy nañuy gën a déglu ay conseils comme nit ñuy def ni émission bi ñuy def ni am na am na solo loolu parce que dañuy dañuy xamle mhm. dañuy dugal ci bopp nit ñi li nga xamante ni xamuñu ko woon mhm. parce que ku xamul ki lay xamal kooku mooy sa mbokk nit dina def dara loo xamante ni xamul conséquences yi comme li ma expliqué sànq rek xamul conséquences yi xamul lan moo ko lan lan lan moo moo ciy jur judd après mhm. xoolu tamit baatu ginnaaw xalaatul dara maanaam mooy ba nit balaa muy def dara dafa xalaat bu baax parce que di déglu ay conseil aussi tamit lu baax la comme ni ma ko waxee mais tamit ku ñuy xamal da ngay dangoo xam mais bu ñu jugé ñi nga xamante ni dañu def tort wala ñu def erreur parce que am na loo xamante ni ñàkk xam moo la cugal ni dina def dara ba pare ëllëg mu naan ay suma yëgoon wala mu naan euh, rëccu naa ko wala li ma def metti na ma wala nanga ma nanga fii kenn amu fi ku sañoon doo doo bon te yaakaar naa ni kenn ku ne am na loo xamante ni bëggoo ko la ko xamal loolu ku ne am na ko ku ne am na loo xamante ni bëggoo ko loo ko xamal aussi moo tax yàlla nañu yàlla jàppale suturaal ñu dollu ñu sutura yàlla dimbali ñu ba ba ñu gën di ñuy gën di gëstu aussi parce que tamit lépp ñàkk xam la comme ni ñu koy waxtaanee nii nii tey ñun danañ ci jëlee njëriñ boo xamante ni xamuñu ko ci woon keneen tamit jëlee ko ci ñuy gëstu di xool lu baax ñu koy def ñuy bàyyi lu bon ñu koy ñu ñu teg ko nee parce que àdduna bi jeex na ba pare waaw euh, macha allah àdduna tax na rek ku ci nekk rek day bàyyi sa xel bu baax a baax a baax te nga jël say waajur te leen te nit ki da am conseil ñàkkoo mag wala mm. rakk wala koo xam ne mën ngay waxtaan ak moom koo xam te ne sa lépp la góor bu mu la tax a bàyyi sa dara même góor gi bu la jigéen tax nga bàyyi say mbokk nit tukki na fi ba tàyyi takk fi jabaram ba ko fi muy def naka su noonu mm. sa yaay tere la bu takk diw nii mm-hmm. nangam sangam nga takk ko loo ci mujjee mm-hmm. defet nga si mm-hmm. mujjee kon nañuy bàyyiwaat suñu xel bu baax a baax ñuy fàttaliku gis nga yàlla daf ne defaral sa biiru àllaaxira ma jàppal la sa biiru àdduna mm. kon nañuy bàyyi suñu xel bu baax mais am na jigéen ñoo xam ne hamburger ak dibi dara na leen lu ne tonton Ngaye tey solution la solution daal mooy maamaram jigéen nga ndayaa mi jigéen la yi bu dee fukk kenn ci dëngal mm-hmm. mm-hmm. naa nit mën nay sol jiin sol déchiré mm-hmm. tubayam ju ndaw góor mosu koo gis bis boo dofee ba ne ko kaay mu ful la kenn nga koy mujj wax jigéen ba faw du ñëpp a dëng mm-hmm. am na ñu bari cëfër cëfër te jub lool am ñu ni teg mara di mm-hmm. mais nag boo ko jugé tooñ ko mus a fekk góor ci kawam boo ko ne euh, doxkat nga da nga koo yeb mm-hmm. parce que nag kenn mosu koo gis kon li wër daal mooy euh, ku xamul dangay dem xam lu ji wax naa la fii daara oustaz xaali ngay fekk naa fa ay jigéen ñu mag jàng alxuraan parce que am na noo toll ci alquran loolu dootul nekk sa xel da ngay nekk ci weeru koor xalaatoo ko am na ñoo xam ne sax foofu bu nu demee ba mu dikkal la ñu woor ngir bañ koo def loolu dafa bari ci àdduna mais ku xamul da ngay dem xamlu ji ba ñu xamal la tey nga nangoo ñu xamal la. Mm-hmm. Euh, loolu boo dellusi suñu jamono juñ toll ñu bari jëf-jëf joo xam ni. ñàkk xam parce que xamuñu leen fay fekk. Mm-hmm. xam kenn naan rey dañ ko ci manifestation bu ko leeroon bu génn këram ñu rey ko du dem. da mm-hmm, mm-hmm. ñàkk xam ak coow lu bari laag. riir ma mu topp ca ba yàlla dogal ko ca. moom moom mu am ci ak faatu kon euh, li des mooy ku jàng na ak loo mën a jàng ci àdduna boole ci jàng àdduna mooy nga xam àdduna comportement wu àdduna. dafay école boo xam ni euh, dafa bari ay professeur te ñu wuute te lépp nga di ko jàngandoo même jour xam nga tey da ngay am devoir. def beneen benn benn benn yaa ngi ci environnement wala yaa ngi ci culture wala benn mais ki li nga jàng noonu lépp même même temps kon dafa xaw a jafe. kon nañ gën a góor góor suñu bopp tey it euh, ñi nekk ci télé yi mu xamal nan ñuy xamal lu nu war a xam te xamal lu dama gis keroog Ablaye Baba Diagne maa ngi koy nuyu muy imam Baba Diagne ma dem benn jumaa man damay damay wër damay wër ajumay jumaa ji may julli fi ajum jumaa mbay noonu lay def. jumaa bi ma tase moom julli mu xutba xutba bi neex ma trop. parce que dafa xutba rek ci li ñu war a xam mooy nu ñu wooree tuddul Macky Sall tuddul Ousmane Sonko tuddul Mafal tuddul Khalifa Sall moom dafa wax ne bu ngeen bëggee woor waaj leen ko jàngal nit ñuy wooree ba sunu koor jag ma message ko ne ko imam parce que man loolu laa bëgg loolu aussi mooy xam-xam xamul nga xamal leen am ko bëgg naa julli mais moom xamul ñuy julli waaye moom it bu mu rëy na dikk ko ñuy julli am na ñoo xam ñi ngi sëy ñaar góor ak jigéen mënuñoo ko farata parce que ndaw si tanewul waa ji waa ji tanewu ko pour jàngal ko sangu farata laa leen imaam bi kon dañoo mënta sangu farata jàngal na ko amul rëy mu jàngal leen ko loolu lépp mooy ñàkk xam donc tamit daan ci gën a ñëw ci reewande xam nga boo ne du dafa reew yaakaar kuy saagaal déedéet nit ku reew mooy ku cekkete cekkete solu ci piit nuyoo kap ku baax lay doon parfois waaw ñu ànd ay eh, waay xool ko moo reew waay fekk ni bukk gis nga kii saaga kooku yàqu da koo yaradiku la maanaam ku ñu yarul. mooy saaga ay mag ak saaga boppam ak dafa yaradiku. Mm-hmm. kooku dañ koo yarul. bokkul ku xamadi ak ku réew yooyu ku réew du saaga kenn mais daal dund boppam la dund moom loolu newul ci keneen lekkam gu baax yërëm yu rafet lay sol cekk cekk kum mu nuyu dem amul soxla ci waxtaan do sa am xarit kookoy ko ku mooy parfois doomu li ci ëpp les ñu doomu milliardaires yi ci ëpp dañu am réewande goo xam ni loolu mooy seen dund ñu ngi dam yee seen portable seen yoon newul ci yeneen donc xamadi daal mooy bëgg a réew mi te du gone yi kese mhm. ay mag jëmm fi ne xamuñu dara ku ci toog télé ba karawaatu dina la wax ay article ba nga naaw xoolal xamu ci dara kon non c'est vrai parce que loolu nekk loolu loolu nag dayaa ñoo réeral ñi ñi ñi leen di seetaan mhm. da nga yaakaar lii waay wax dëgg la mhm. xam nga man boo ma dëkkee ci fen te kenn néewu ma fen ga ki may seetaan da yàgg gëm ma samay fen ma te kenn weddiwu ma ni loolu nag moo yàq réew mi xale yi moo tax may wax toujours toujours la jeunesse sénégalaise mm. euh, bu leen dégg tël ni damm na bu ne lii dafa xees demal xool ba xam xees naan dit mm-hmm. bu ne dafa chocolat xool ba xam dafa chocolat doog caa mën a waxtaane mais ah waa jaka wax dafa xees te amul su waxul dëgg rek nga nga jàkk wax dëgg mm-hmm, loolu nag noonu yóbbaale ci riir mi ak cool yi waaye en tout cas daal euh, bu am solo bu ko nit ñu yaatalee ci gàttal mooy ki xamat yi mooy ki xamul lu tàng xamul lu sedd xamul xamul xamul xamul nañ ko dimbali nag ba xamal ko mu am xaw te moom it na nangoo xam ngir mën a dimbali ko mm-hmm. la la ci xam ci thème bi. macha allah tonton Ndary wax nga lu am solo tax na ndey yàlla ngay tàggatoo. waaw maman maa ngi amoon mbégte contentement di partager ak yéen bi ak tonton Ndary di ci wax lépp loo xamante ni wax nañ ko ci rek yàlla na doon loo xamante ni dañ koy jëriñoo ak ñeneen ñi seetaan. mu doon njëriñ parce que yaakaar naa loolu lañ ci jublu comme ni ngeen ko waxee nii xamadi ñun ñu toog fii di ci waxtaan di ci génn gindi nit ki di wax li nga xamante ni lu baax la pour ni nga xamante ni ñuy déglu buñ ci nekkee ci yoon yooyu ak li ñu fi wax yépp ñu mën a changer jël beneen yoon may ziar ñëpp di ziar sama sœur bi moo demoon gàmmu daaru musi ki démb di ci ziar dégloo sama mag sama xarit ndeysaan lu ñun groupe lañ defoon nekk en famille ñuy ñaan yàlla def defaat ko yeneen at yu bëree bëri bëri kenn bañ a manqué may ziar sama yaay Mbayang Fall madame Diop moom mi ngi Thiès maa ngi koy ziar bu baax di ko kontaan di ko bégee di leen jox di dajee ba dimanche incha allah bàyyi bu baax xamul laajal surtout sangu farata bi tonton ngaay wax léegi da ngay laaj am na ñoo xam ne jël nañ téléphone bu bees xamuñ ci dara mais da ngay laaj ah. whatsapp bi nan la ah. facebook bi nan laa ciy duggee nangam ni nga laajtee ba xam loolu boo ko laajtee nga xam la ca des kon doomu aadama yi leen arrangé rek la ñuy bëgg di xam mais li ci des lañ koy ah. xool ndax ngir jëmmi yàlla suñu borom tonton ngaay lan day tàggatoo sant yàlla te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaanal suñuy waajur sant suñu wasila ba Sëriñ Tuubaa Xaadimul Mustafa ak mbooloom koy di ziaraat ñëpp di leen wax ni ñu leen di ci weer yu ñu war a dugg yàlla ñu ko fekkee. amiin suñ ko fekkee lan nu ci sant yàlla ñu ko def. te buñ ko defee yàlla nu yàlla mataleen ko. amiin amiin ñëpp ay xéewali ndogu ba nu am ko. Euh, du ma def émission toujours bàyyi te santuma ko le président Macky Sall nee naa ko sama mag nga suma président à vie. wax yàlla ku ma ci mere danga maa tooñ donc nag <laughs> eh, ndax ku ne am nga ca sa nitu bopp man sama nit a ah, koo xam nag nit koo xam musuma ko tàllal loxo te duma ko def mm-hmm. musuma ko billante na ko may ma te duma ko def waaye réew mi firnde gi rek mooy bërki démb otoraay bi dawaat na sax eh, ci Thiès otoraay bi départ na ca raay ba mm-hmm. daw wuti ndakaaru ñëpp yéeg toog ku ne liggéeyul da nga yaa xëyul waaye moom xëy na ba Cees saxaar ba ñëw na te defe naa dana continuer ba ci njàmbur gi jaaraf jëm Matam incha allah mën na ko fee bañ a fekk parce que ne na le 2 avril ma pare ci nguurug senegal waaye maam Marème moo tax ma ni sénégalais nañ def attention gis nga sénégalais ñun ñëpp a jaar ragal bu fayu baaxul. gis nga bu nu menace doon gone tàppet yi boo bu la sànnee xeer nga daw. Mm-hmm. su ma su xeex sànni la xeer. Mm-hmm. sénégalais yi dañoo ragal gis nga bu la nappee. nga daw. gis nga dañ def président Macky Sall bu fekkoon dafa raf tuuti daañu ko génn réew mi bu paree gox sa génn réew mi bu génne ñu fekk fa mu nekk na ko génn génn àddina <laughs> waaye heureusement que day góor gu taxaw. te xam gaa ñi ñu ngi ko jàkkaarloo kon damay ñaan yàlla mu defal ko jàmm kaay la ñu waxtaan moom defe naa ni ku ko bañ am nga loolu na leneen. Mm-hmm. kër sax nit ñi dañuy xeex ba jamante paaka yu waaye toog la waxtaan waaye sëñ bi tribunal sax la ñuy waxtaan bala ñuy def jugement kon kaay ñu ñuy waxtaane réew mi ku ca bañ dem am nga loo boot waaye kaay yi wax nga wax man ma élection bootewuma waaye lii ñun ci réew mi kaay ñu ko waxtaanee ba mu jub ñu xam kañ lañuy jàpp dat bi man demuma la deux ma dem bale nag réew mi ni nga ne ko non non def ko tey tey tey kenn du ko def tey tey defu kenn defu kon yàlla ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam euh, fu mu toll ñu ko ñaanal mu jàpp am jàmm fu mu jëm yàlla ko jàmm gunge ak njabootu këram ak njabootu Sénégal euh, di gërëm sama yaay Aminata Mbengue di ko wax ni les acteurs culturels euh, mutuelle de santé bi namm nañ ko falaayam yaay xam ne li ma koy wax mutuelle de santé bi namm nañ ko di nuyu waa Moustapha Mbari am nañu gàmmu le neuf maa ngi koy wax Babacar mii te yéen ñi war ngeen dem ca gàmmu ga le neuf incha allah ñu xëy yenn si fa ca gàmmu ga ndax suñu xarita Moustapha Mbari Eh, ca mbariga mbari la àlla du nuyu sama mag sama xalifa Mamadou ma nga ca Kaolack sama sama taaw yaay maanaam sama yaay ak sama yaay ñu bokk ndey ak baay yal ko yàlla may jàmm mm. waa Touba sama waa kër maam ñoom Rama Cissé ñëpp dañu seetaan émission lu bari yal na yàlla defal leen jàmm defal ko képp koo xam ne léegi nit tasi ni mun ma seetaan naa la de def leen nangam ak nangam ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ziar mm-hmm. eh, di ñaan yàlla di ñu jéggalu ci loo xam ne eh, benn benn war rëcc rëcc mm-hmm. kon nag mi ngi noonu gudd naa waaye c'est pour ziar ñëpp daal yàlla ñëpp am jàmm ñin libéré ci prison yi am leen fu lay bañ caa dellu fee neexut ñëw leen toog ku la kaa ñu xeex ne ko xeexal ba noppi maa te la waaye man xeexuma càmm ni bay yàlla tàng na kii jël réew mi 2024 ci kàttanu yàlla kookoot li neex yàlla dong lay doxal kon nañu yàlla dimbali ñi feebar wér ñu ñàkk am ñi jaaxle suñu borom defal man nag bëgg naa am ñaareel wax dëgg yàlla doo ko ñaareel de. ah dinaa ñaareel bu bu jongee bu baax bu mën a dalal gan bu bu bëgg naa ko de. fii laa ko wax ci Leral TV ah, maa ngi jeexal nag ci Babacar. ñu ngi gërëm Birahim Touré sunu directeur. communication ndeysaan tasa nañ ca ca Daaru Muxti kër Mafal euh, ca Michou ya ndeysaan dañ koo jox Michou mu ne woo mu ne Babacar ñëw leen. lekkul bàyyi nu ci Michou ba. mu fekk ko ca néeg ba. fan ko dal nu bokk ak moom boolu misuye yéey ca ak ya ca ànd yëpp Ibrahima directeur ñu ngi lay jaar baax loolu bëgg nañ ko parce que tuutiwul ci ñun mën ngaa def say mission rek bàyyi nu waaye xam na ne ñun ak njabootam lañ Matar Sakho liggéey boobu liggéey moom Babacar liggéey bu am solo euh, waa leral yëpp ak fa teewoon yàlla yàlla dafa jàmm ñëpp daal. Ah, dégg nga ah waaw borom kii ba waaw kooku dafa kontaan nee na Sénégal neex na parce que jënd na marchandise yomb na jënd na ko juróom-ñaar téeméer. wax na dëgg réew mi neex na wax dëgg. yàlla na ko yàlla sàmm moom it. macha allah <laughs> ba tax na ñu santaat yàlla bu baax a baax a baax rek di am mbégte ak kontaan teewaat fii nga xam ne moo di leeral TV. ñuy jéggalu bu baax a baax di jéggalu bépp wax boo xam ne wax nañ ko fi boo xam ne dafa xaw a doy waar ñoo ngi jéggalu ay doomu aadama kese lañ ay jaamu yàlla yu xeebu lañu ay nit dong lañu lépp loo xam ne lu ñu fi wax rek ñu ngi jéggalu di jéggalu bu baax a baax a baax doomu aadama bi yàlla rek moo xam nit mais dañoo bëgg suñu moroomu jigéen ñu gën a góorgóorlu gën a xool fu ñuy teg seen tànk ndax jigéen mooy magasin yàlla jigéen su baaxee kër baax àdduna baax lépp dafay baax kon nañu xoolaat bu baax fi ñuy teg suñu tànk bu baax a baax rek ñuy ziyaare waa Daaru Musi di ñaan yàlla ñu yàlla defal jàmm ñu fekkaat màggal gi bu baax a baax a baax tonton Babacar nag mer nañ la man ak Ndaya ndax bokkuñu ci missibilité nag ñu fay waaw nag ñu fay boo ñu fayul fii lañ koy wax émission bu ñëw dinañ ko wax fay ñu tonton Matar ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit di ko ziyaare mais kenn du Babacar Diop njóobeen wax dëgg yàlla jàmbaar la mu ngi ci technique bi di def nii di def naa rek kon yàlla na sa jàmm bu baax a baax ñu nuyu waa àdduna di nuyu waa Louga yëpp xamante ne yaa ngi toogoon di seetaan Leral TV Leral point net aada ak cosaan rek ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm bu baax di ziyaare waa village tamit bàyyi ñu ne waa SOS ñu ngi leen di ñaanal bu baax waa Touba Mbacké bàyyi ñu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan rek ñaanal nañ la jàmm di ko sàkku ci yow bu baax a baax a baax tonton maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax tamit ngay sama xarit di sama tonton xam nga président il faut que ma laal la tuuti ci émission bi Ndeya maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax incha allah maa ngi ñaanal ñëpp <laughs> ñëpp jàmm di baalu àq ñëpp di gërëm sama papa di ko ñaanal jàmm di gërëm sama yaay di leen ñaanal jàmm bu baax a baax yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yal nañu yàlla may jàmm yal nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla may xéewal gu bëri ci barke Seydina Mohamed di leen jox rendez-vous ba dimanche incha allah ci émission aar ak cosaan merci beaucoup nekk leen si jàmm